clip bu bestar tax en compagnie de Deep Dundugis. son baby di son bi nga xamni na bu baax cartonné ndax fo rombu ci mbedd yi mom ngay son bobu la wa Prince Art dal di def clip muy clip bu nice riche en couleur ak émotion comme un vrai clip d'une chanson d'amour mais nak ñu remarqué ni lepp dañ ko tek ci règle ak code de l'art amul ben image bo xamni ni nit dina ko xol di rus manam ben image bu gineul. mu melni fi fii Jamra amuñu fi place ndax baax tout est nickel pour yeen ñi xamul son bi ba tey fi nga xam ni fa la ayda Samb di sama reeni xol mi day yit suma la amul won defar na la sunu digënté lepp ma ci neex ni ma la bëggee ni de ëpp na dib dal di koy tontu niko sama reeni xol mi day yit aduna du neex bama gis lu melni yaw yaay sama baby love sama gidelam ma yemale ko fofu ndax yaakar na ni comprendre ngeen xam ngeen bu baaxa baax son bi ma bëgg wax kon daw leen sétani ji ko ngir rek ngeen enjoy enjoy son bi bu baax a baax comme ni leen rek son bi euh, bégalee woon